internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak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 ministre loolu war a am bésu ba tey bi laas yéene kaay ba léegi ci loolu la dikkaat sax nee na njiitu réew ma daal àdduna jëmale ci gouvernement bu bees bi wante itam dund bu cher bi ak la nga xam ne eh, xewoon na te assemblée nationale te nag mu koy ñaawlu di ko euh, méttitlu ñëwaat nañ itam ci kii di Aliou Cissé di sélectionneur national ak nag euh, liste vingt neuf joueurs yoo xam ne euh, convoqué na leen pour li nga xam ne moom mooy ñaari match amicaux yi nga xam ne war nañ ko jouer contre Bolivie ak Iran ngir préparer lii di mondial deux mille vingt deux bés bi le jour ñëwaat ba léegi ci message à nation bi nga xam ne njiitu réew mi def na ko ñu ne nag dafa am ay lees waxul ñu ne njiitu réew mi nag li nga xam ne sax moom mooy troisième mandat adduwul waxu ci ñëwaat nañ itam ci Aminata Touré mi ne moom daal da xaar sax njiitu réew mi wax ne du def lii di troisième mandat ñëwaat nañ itam ci yeneen poñ yoo xam ne njiitu réew mi wax na ko ci boobule euh, message à la nation bess bi la jour ba léegi ñoom nag ñu yaakaar ne poste premier ministre ki nga xam ne moom mooy Moustapha Ba nekk na koo xam ne daal euh, yaakaar nañ ne loolu njiitu réew mi dina ko tabb le quotidien yéen a ñëwaat ba léegi ci njiitu réew mi ak euh, message ba mu doon amal démb ñu ne nag la nga xam ne daal moom moo xew ci assemblée nationale naqari na ko lool te joytu na ko nee na nag loolu lu ñaaw la ci réewum démocratie bu mel ni Sénégal te nee daal kenn warul yàq loo xam ne moomeelu ñëpp la ñëwaat nañ itam ci xalif général des Mourides ak daal accord de la paix fële ca Casamance nga xam ne nguur gi am na ko MFDC mu rafetlu ko bu baax a baax ñëwaat nañ itam ci màggal gi ak na doxee. organisation bi ñu ne nag gannaaw bi nga xam ne Touba xumboon na lool euh, li des ci réew mi wéetoon na la soleil yéene kaay ñëwaat ba léegi ci njiitu réew mi Macky Sall ak euh, déclaration bu démb mu ne nag euh, moom njiitu réew mi nee na daal li nga xam ne moom mooy dund gi ñuy dund doon benn nee na loolu dañ ko war a sàmm waruñ daal def lu koy yàq dikkaat na itam ca xew ci assemblée nationale mu koy naqarlu wante itam jéego yi nga xam ne ak koppar yi nguur gi yëkkati ngir gën a yombalal ñi nga xam ne ñoom ñooy borom kër yi lii di dund bi ñëwaat nañ itam message ba nga xam ne xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké amal na ko euh, ci li nga xam ne moom mooy màggalu Tuuba gi wante itam Aliou Cissé ak euh, juróom-ñaari joueurs yu bees yi nga xam ne woon na leen ci équipe national bu Sénégal réew mi quotidien ñëwaat ba léegi ci li nga xam ne moom mooy nomination bu premier ministre bi nga xam ne kon war na am basub tey bi ak lii di gouvernement bu bees bi ñëwaat na ñu ne nag gannaaw bi nga xamee ne xaar nañ fukki weer basub tey bi kon lépp dina leer les échos yéenekaay ñëw nañ ci mbirum Sitor Ndour mi nga xam ne dañ koy jiiñ wàllum viole ba yóbbu ko sax kaso ñu ne nag euh, waa parquet daal euh, bañ nañ may ko lii di liberté provisoire ba léegi ñëwaat nañ ci après réunion boo xam ne ñu ne conférence des leaders bu Bokk Yaakaar ñoom ñoo ko am ñu ne ñoom nag nee nañ daal ñu ngay jàppale taxaw ci ginnaaw ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi Macky Sall dikkaat itam ci li nga xam ne moom mooy premier ministre ak euh, gouvernement bu yees bi nga xam ne war na am bésub tey bii ñu ne lépp nag dinañ ko xam euh, ci kanam tuuti tribune yéen kaay ñëwaat euh, ci déclaration bi nga xam ne njiitu réew mi amal na ko ñoom nag ñu ne waaw léegi nag lépp leer premier ministre dinañ ko xam bésub euh, tey bi ñu dikkaat itam euh, ci ki nga xam ne moom mooy xalif général des mourides bi nga xam ne daal euh, nee na kontaan na te seen ci nañu doxalee lii di màggalu ko Touba Bougane Gueye Dany itam di dal ci njiitu réew mi Macky Sall mu ne gannaaw fukki at yi moom dafa jàpp ne sax kii di Macky Sall dafa waat ak cuuneem ngir daal mën a lijjanti lii di réew ko Sénégal libération online dafa ñëw ne ci mbir mu association de malfaiteurs extorsion de fonds maanaam daal ñoo xam ne dañ doon ànd di def lu bon ak di tiriyaande ay nit ñu nag am na ab policier bu nekk ci commissariat bu Thiaroye boo xam ne teg nañ ko loxo ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne eh, moom mooy euh, nomination kon bu premier euh, ministre bi ak gouvernement bu bees bi ñu ne loolu nag euh, dinañ ko xam ba suba tey bi direct su ñëwaat ci màggalum euh, Touba ak nag ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi murit ya jóge fu nekk ci senegal di dem foofu euh, foofule ca tuuba ak na mu xumbe woon ak lañ fa def ak euh, jàngum xasaayid ya ak alxuraan ba nekk na loo xam ne ni kon lu am solo la ak it berne ya ak lañ fa rey ci ay jur mu takku lool ñëwaat nañ itam ci ki nga xam ne moom mooy Duudu Ka mi nga xam ne daal mu ngay yëkk lu mel ni xeme kii di Aminata Touré. stade yéen kay dañoo ñëw ci li nga xam ne moom mooy ñaari match euh, amical li nga xam ne kon Sénégal war na ko jouer digganteem ak Bolivie ak Iran ñu ne nag am na sax euh, six yoo xam ne ñu bees lañ mu ne ñaar ñoo xam ne ay retour la maanaam dañoo gëjoon ñëw te delsi nañ wante itam am na ñoo xam ne ab ñu absenté lañ ñëwaat nañ itam ci euh, mbirum Saliou Cissé mi nga xam ne kon Aliou Cissé convoqué ko ñu ne nag mbaa loolu du tax ba lii di mondial bi boo moyewul du ca dem sunu lamb yéene kay ñëwaat ci Ama Baldé Gris Bordeaux bi war a am la cinq ak Tapha Tine Bombardier bi war a am la douze ñu ne loolu nag dina tax ba weeru février daal euh, weer bu neex lay doon ci lii di euh, lambuk euh, Sénégal ñëwaat nañ itam ci bilan bu parcelle mbooloo ñu ne nag ñoom dañoo sax digg doomu ndax neuf neuf victoire ak neuf defet la am ñu ñëwaat nag si génn ko àdduna ki nga xam ne moom mooy Moussa Dioum tax daal kon ba euh, boobule écrit euh, sëngeemoon nañ ci jamono yooyu Sud Quotidien ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy euh, déclaration bu njiitu réew mi Macky Sall bu ñu ne nag neuf minutes sax la def waaye nag taxul mu convaincre nit ñi ñu ne nag kii di premier ministre ak gouvernement bees bi dinañ ko xam bés ba euh, tey bii ñëwaat nañ itam euh, ci euh, ki nga xam ne moom mooy Serigne taxa ak message bu am solo bi nga xam ne def na ko ci jamonoy màggal ji wante itam Aliou Cissé mi nga xam ne ñu ne convoqué na juróom-ñaari joueur yu bees l'observateur l'Obs ñëw ci li nga xam ne moom mooy ba léegi njiitu réew mi. Macky Sall poñ ñi ca gën a am uh, solo uh, gouvernement bees mi nga xam ne dinañ ko tabb bésu tey bi uh, ak it naawlu la xewoon assemblée ak yi ni mel dina ko tàmbali mu war a am bokk ak lii di paluk gouvernement bees mi ba supp tey ñëwaat nañ itam ceeb ab entretien boo xam ne kon am nañ ko kii di Viviane Sidi waat nag ci daal moom li ñu gis ne daal yàgg na fi waaye teewul ba léegi lu mu def daal day neex nit ñi Vox Pop ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy concert euh, Awadi ak ñam ko waroon amal ñu ne nag préfet de Dakar euh, tere na boobule concert ñu ne kon dootul am ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne moom mooy njiitu réew mi Macky Sall ak daal ay poñ yu am solo yoo xam ne kon euh, nit ña ñu ngi doon xaar lu mel ni troisième am ni Karim Wade Khalifa Sall ak yi ni mel ñu ne waaye nag loolu moom yeeyu ca yàbbiwu ca. ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne moom mooy première ministre ak nouveau gouvernement bi nga xam ne kon dinañ ko fal bésub tey bi wante itam Aminata Touré ab ab lettre boo xam ne kon daf ko bind njiitu réew mi di ko ca wax daal ne am na ñoo xam ne ay jegeñaaleem ak jegeñaale soxna Mariama Faye sal di fexeel ki nga xam ne kon moom mooy Aminata euh, Touré source a ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy euh, rencontre bi amoon ci conférence des leaders yu Benno Bokk Yaakaar ñu ne nag euh, parti socialiste teewu ca te kenn représenté wu ko fa waxaat nañ itam ci li nga xam ne moom mooy euh, ci réunion boobu Moustapha Niass nommé nañ ko au conseil spécial président de la République moo ko ko nommé wante itam euh, dikkaat nañ ci li nga xam ne euh, moom mooy euh, di président assemblée nationale bu bees bi di Amadou maam Diop mi nga xam ne kon njiitu réew mi présenté na ko ñi nga xam ne kon ñoom ñooy ay ñooñam ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne moom mooy discours à la nation bu njiitu réew mi Macky Sall ñu ne moom nag daal defante na bu baax a baax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition bi source a boobu sax kon lañ koy jeexalee eh, di rafetu seen teewlu di leen jox dig daje altine jaa ngeen jëf